leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu seetaan ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree tey rek tolluwaayu mbasub coronavirus tey ci altine bi ci 2348 test ya nga xam ne rek amal nañ ko 297 ñoo ci jota positif ci 297 yi nag am na ci 146 cas contact 151 cas communautaire 13 yoo xam ne rek jot nañ cee ñàkk seen i bakkan ak 227 yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wër campagne bi ñuy jagleel rek wàllum ñekk yi ngir nag freiner li nga xam ne mooy feebaru coronavirus dinañ ko amal nag ëllëg ci talaata bi ki xam ne li ni mel rek moo di jawriñ bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram di Abdoulaye Diouf saar moom moom moom le sax nag dina bokk ci ñi nga xam ne rek ñooy njëkk vacciné wu rek ci boobu la ñekk ngir rek dakkal jii jaaxa yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy amal fële ca pencum ndaw réew mi kii député bii di Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy daal di nañu tekki rek seen i ndombo tànk ci commission ad hoc boobu nga xam ne moom la ñu dënmal ngir wax ci li nga xam ne rek mooy teggi malaanu kiiraayu député boobu di Ousmane Sonko li waral li ni mel nag yooyu la député rek dañoo jàpp ne kii di Sonko dafa am àq ak yelleef yoo xam ne rek yooyu la as boobu la assemblée daf ko bëgg a yi ñu daal di dem ak yéen rek fële ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ginnaaw na nga bañ fa nemmeekoo rek ay scène de violence ki nga xam ne nag moo jiite kuddu rek di Maguette seen daal dina jox ndigal agent ya nga xam ne ñoo yor wàllum kaaraange bi foofu foofule ci université boobu lañ fa nemmeeku rek ñu amalee visite nag ca campus social ba moo di rek ay ngànnaay yoo xam ne gis nañ ko fa lu ci mel ni ay jaasi rek ak i gourdin ba tax na nag kii di directeur bi rek di Maguette seen la mu xamle rek moo di ku mu fekkati rek mu yore yooyu le ngànnaay rek ay daan yu métti mën na la ca fekk commission sur le croissant lunaire ginnaaw nag kii di Mourchid Ahmed Iyane Thiam génnee àdduna ka ko fa wutu rek nekk El Hadji Oumar Ngalla Diène li ni mel nag ñii di euh, Seneweb ñoo ko daal di xamle waaye rek euh, ña nekk membre nag ci boobule commission rek ci ab bataaxal daal di nañ euh, démentir boobule information ñoom lañu ñu xam ne rek moo di kii di Mouhamed Bouchra Dieye moom la ñu teg ci boobule commission ba tax na nag dinañ amal rek ab ndaje ci samedi bi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ngir rekk indi leeral ci boobule mbir. donte feebaru coronavirus mi ngi wéyale yoonam rek fii ci Sénégal ziaru Léona Niassène bi dinañ ko amal rek ci fukki fan ak ñett ci weeru mars ki ko xamal rek ki ko xamle moo di xalifu général bu Léona Niassène di Cheikh Ahmed Tidiane Niass di ci woon nag uma islamique bi rek ngir ñu amal ay ñaan rek ngir dàq li nga xam ne rek moo di feebar bi fii ci Sénégal jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi doon teewlu xibaar yi ci Equivox TV ñu ngi leen di jox dig daje rek ëllëg incha allah.